salaamaaleykum waa mi internet Univers Info TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalalaat jàmm ci seen émission bi nga xamante ni tàmm ngeen ko muy Cœur Ouvert Cœur Ouvert nag tey dañoo doxantu si ñëw wax seet si benn ndaanaan fas yéene waxtaan ak moom ndaanaan boo xamante ni kenn xamul noo koy qualifié ndax day fecc euh, day jeu théâtre day way lu nekk lay def muy Aziz balaa moom lañ seet si woon tey fas yéene waxtaan ak moom bala ñoo dugg rek ci waxtaan bi dañ koy jox suñu micro ko mu nuyoo ak yéen bokk internet yi salaamaaleykum Aziz. maaleykum salaam doomu ndey laa lay wax Gallo. di kontaan ci sa teewaay fii wax dëgg yàlla di la xamal ni ñëw nga ci sa kër waaw parce que sama doomu ndey nga dañoo liggéey liggéey liggéeyati nga doon ko baax doon taalibe Serigne Saliou Mbacké doon sama mbokku taalibe maa lay nuyu di la dalal di nuy waa Sénégal gépp di nuyu képp fépp foo xamante ne fonction Aziz Dabala alliance Kelle ma nga fa rek maa ngi lay bëggee di la tàllal loxo di leen ñaanal di nuyu waa Pikine ginnaaw raay fi ma juddoo yaroo fa màggee fa ñi ma tette. muy banlieue bi muy Pikine maa ngi leen di nuyu daal boo bëggee dégg dëkk monde entier waa diaspora bi États-Unis Europe fépp ndax xam naa ni fépp waa dëgg même sax du dara maa leen di faj ñoom ñëpp maa leen di faj macha allah ndax VIP sant mais ñu naa ñëpp daal gars yi yaa ngeen jëf. Euh, bala ñoo bala ñoo sori il faut que ñu camper la le le débat parce que am na ñoo xamante ni ñu ngi lay gis ngay perse di dem mais xamuñu sa jaar-jaar donc en quelques mots bu fekkee mën nga ñëw tuuti rek ci sa jaar-jaar. <clears throat> waa jaar-jaar bi waaw dëgg la parce que chaque jour dañu may gis yenn facettes yi quoi tey nga gis ma fii suba nga gis ma fii affaire yooyu noonu day baax ñu koy leeral tamit parce que chaque jour tamit sant yàlla quoi connaissance bi di gën a kii duñ koy sant yàlla. Aziz Dabala doomu ginnaaw raay la doomu banlieue doomu doomu juddoo ma ci ci ci ci kii quoi dama juddoo ci quoi ci ndóol laa juddoo suñu kër da doon taa affaire yooyu noonu. waaw doon xale bu am jom nag am ambition parce que tamit juddu ci ndóol lu tax nga am jom yee lu tax nga am jom vraiment wax dëgg yàlla ñu koy fayit amoon nag fu ñu teg suñu bët wax dëgg yàlla muy dugg ci aar bi yàlla suturaal nañu wax dëgg yàlla ba ci fecc bi ma nekk nii ak cinéma monde entier ñu ngi may bëggee ma koy sant yàlla te nag lépp na ca cadre ambition doon doomu banlieue tak parce que man dama naan boo juddoo ci ndóol rek yow am nga sas quoi. waaw am nga sas parce que boo juddoo fekkoo sa dara pare loo am yaa ko may sa bopp kon kooku da nga war a am jom ba tax na maa ngi nii doon taalibe Serigne Saliou Mbacké nag waaw doon murit saadix waaw doon fecckat bi doon acteur cinéma bi doon doon doon lépp daal. lan moo lan moo tax nga choisir fecc comme métier. <coughs> waaw fecc xam nga lu ñu naan destin dafay am. man bëgguma ko woon bëgguma ko woon te pourtant dama ko mënoon bëgguma ko woon parce que man dama bëgg comportement bu baax dama bëgg comportement bu baax parce que dama bëgg lu baax bu njëkk ñi fi nekkoon temps yi may nekk xale di leen doon seetaan gis nga fecc kay ni ñu doon ni doon ni doon comporté woo dañ doon sol ay yére yu bizarre takk ay jaaro benn vulgaire buñ duggee ci géew di fecc lokk seen benn gaz affaire yooyu non si moo fi amoon dama leen ragaloon sax dama leen ragaloon comme bongo rek bongo maa nañu jokk nañu meloon ak léegi gis nga léegi ñoom Ouzin Mbaye nañu civilisé mais nag bi sama grand yi ñëwee ko ci mel ni Pa Moussa Sonko Sonko Manding Mor Amady ah, di yoo xamante ne ay yëre 500000 di ba ñu teg ma ci ñoom ñëpp maa leen di nuyu sama grand yooyu waaw looloo tax nag ma am amuru fecc mais bëgguma woon fecc mais ci ñooñu nga lim am na koo ci ñoo ci bokkaloon groupe dégg naa sax ndeysaan dangaa dem ñëw ñu dàq la ni la jarul ngay yéeg di fecc ñu dàq la looloo la def fecckat. non non du du histoire bi foofu histoire boobu Gallo histoire bi du sama problème ak danseurs yi. waaw loolu loolu bëgg ma ci sax du xuusaat nag. foog nga xuusi pour leeral parce que tamit. gisuma ci gisuma ci tamit lu ñaaw ko parce que tamit tey. Ah, loolu ñaaw na bokk nit groupe ñëw di ñëw wala yéeg pour prester mu ne la tey jëluñu la tey doo fecc. Euh, waaw waaw waaw loolu loolu benn orchestre la. bëgguma fi parce que kooku dama ko bëgg vraiment dama ko bëgg billaahi bëgguma wax ci moom dara mais xam nga tamit am nañu ko fekkee woon journaliste yaa ngi fi ñuy capté ak yooyu noonu quoi moo tax man bëgguma ci débat waaw loolu groupe Pape Diouf la woon sama mag sama xarit ma bëgg ko trop nee naa leen bu ci Aziz balaa mën a fecc groupe ba mu nekk wala muy génération consciente ndax dañuy musique pure macha allah originalité dafa nekk génération consciente man nag dama nekk xale boo xam dama yàgg bëgg lu baax vraiment dama yàgg bëgg lu baax. waaw wax dëgg yàlla mu mu ma nekkoon fa nag di dóor yeneen fecckat ñëw fa affaire yooyu noonu xam nga rek bu nekkee xale moom non non non du folli sax parce que tamit bu nekkee mën a fecc moom yàgg na ci Aziz yàgg na ci man quoi mais comme ñooñu ñoo ma ëppoon tur teg ci tamit xëy na moom artiste bi tamit man arrangé tuma ko ci chaîne am bëggoon na xam nga rek gis ñeneen beneen décor waaw léegi ñëwoo woo ma tamit ah, ah, du ma ko ci ne ko parce que tamit ku ci nekk tamit li dal sa xel ngay def te tamit du moom yàlla la. parce que destin dafay am loolu moo defar Aziz Dabala temps loolu moo ma defar parce que bi ma ñëwee teg ñu def ma loolu defaat ma ko laa ne ah mais il est temps nag ma taxaw benn yàllaa fi ne di séddale quoi moo jox Seydina Mohamed moo jox Serigne Touba bu nekkee cadre A bi moo jox Michael Jackson moo jox keneen ak keneen ak keneen pourquoi pas Aziz war a mën a taxaw dëggal boppam ci la Aziz Dabala dëggalee boppam te tamit wax dëgg yàlla réccu ma ko ci terewul tamit jàmm ak lañ sekk ndax def naa fi bis defati fi bis mu taral ma moom Pape Diouf jox ma xaalis bu bëri mbay mii mu ngi nii mu doon ku baax mais tamit liggéey la woon quoi waaw liggéey la woon rek liggéey bee laajoon loolu nuyu naa la série bi baax sama mag sama xarit même bu ñu gisee fecc bi yow da nga ñëw indi yeneen touche parce que Aziz boo ko gisee mu solu tenue seenam yi c'est c'est c'est extravagant léegi lan moo tax choix boobu noonu ngay bënn bënn sa sa nopp ah, yar sa karaw bi nii di sol sol yoo xamante ni c'est un peu efféminé pourquoi ce choix. waaw parce que àddina bi moo toll foofu liggéey man moom maa nekk ni koo xamante ne mooy sama interview mu mujjee wax rek man moom ma métier lu ma may dama koy def mënu ma ne ne maçon laa damay rax du ma tabax non non non damay def lépp te ku ne xam na ni fecckat da nga war a am profil. da nga war a am image. yow boo ñëwee ci géew rek waroon na fecckat laa dañ la war a xool xam ne kii fecckat laa te man niveau international bi daf ma ñor daf ma ñor trop trop trop dëgg la nag Sénégal nag moom sa mooy sama dëkk mais su ma sañoon lii may def non ma ma ma mu doon lu universel ku ne mën cee gis boppam ba tax na damay jël mbalax bi des fois di ko déformer ba ci tënni bi di ko déformer ba nga xamante ne tey étranger bu jógee fee dina ci mën a yëg boppam quoi Aziz Dabala nag boo gisee chaque jour moom bu taxawee sur scène bu taxawee sur scène kenn du ne kenn du ko laajte dañ naan ma nga nële. waaw muy Dabala bi yàlla moom may karaw maa doon ñu ma doon niróo ak ay artistes quoi fecc kat mais mooy li ma la wax rek ba ma loolu dalee laa jël sama yoonu bopp créer sama look am lu may solo mais tenue la rek tenue seen la quoi mais tey bi nga ñëwee sama kay gis nga te su ma la rombee ci koñ bi nga naan kii du Aziz Dabala mais nag sama métier man lu ma may non dama koy def dama koy def quoi macha allah ci laa nekk léegi ba tax na daal Aziz Dabala bi siw mais tudd nga fi Michael Jackson mais bëggoon naa xam yow au moins nga wax ma euh, yan artiste wala yan chanteur wala kat ñoom ñoo lay inspiré à ce ngay dund sa aar yow. man moom boo bëggee dégg-dëgg Sénégal laa amee ay repères ay références muy Papa Ndiaye Thiou vraiment Pa Moussa Sonko vraiment Amady Badiane ñooñu mag ñi daal boo bëggee dégg-dëgg ñoom yéeli ñoo ñoo doon samay référence cadre fecc ba ci sax sol dama leen di jël mais côté niveau international bi damay xool Chris Brown damay xool Michael Michael moom lu may xool ci moom nekkul tëni ba parce que loolu sax ñu ma koy sol fii nii mais la may xool ci moom mooy mise en Misa Seen am dama koy xool Chris Brown dama koy solo damay solo Chris Brown quoi parce que dëgg yàlla Chris moom moom bu ñëwee pour fecc rek lu ko saf lay sol. ami internet euh, je vous le rappelle on est on est toujours avec euh, Aziz Dabala alias Kels moom lañ ñëwoon tey fa yéene waxtaan ak moom ñu ngi ñu ngi doon wax nag ci lu jëm ci wàllu carrière am fecc ak yooyu mais yéen koy gis ci beneen facette muy wàllum cinéma ñu bëggoon a xam Aziz lan moo la dugal ci wàllum wàllum cinéma parce que ñu ngi la njëkk a découvrir ci série bi ñuy wax euh, Dikoon. waaw liñ naan artiste da ngay polyvalent rek te fecc nekk na loo xamante ne yow boo ko xasee ba mën rek ragal naa ne daal leneen looy def ci aar dina la yomb quoi parce que fecc dafa nekk xam-xam boo xam ne dafa ànd ak énergie doole bu ànd ak xam-xam bu ànd ak doole la ma déggee kastin bi parce que loo xamul xamoo ko jamono jooy xaw ma ko woon ñool bu maa koy ñool moo ma woo bi ma woo ma woo booy ñu dem ci kastin fecc sax laa ko foogoon fecc parce que da histoire bi danse la man lépp lu dugg ci danse dafa ma intéressé ma dem bi ma demee participer fekk fa artistes yi bëri man damaa dugg ci saal bi rek gaa yi toj ji def casting bi ñoo ree ba dagg ma xam ne xel dal na quoi ñu jël ma jël samay doom affaire yooyu dafa man contrat 3 ans waaw mu nekkoon loo xamante ne da doon nelaw ci man ma ciy nuyu nag Sirif Asfati ak Awa Fall ak Trésege ndax ñoom ñoo nekkoon sama ginnaaw di ma dooleel def ci man cinéma parce que bi may ñëw di koon xaw ma woon dara wax dëgg yàlla ñu jàppale Lo jabaram maa ngi leen di ñoom ñëpp waaw loolu ma yóbbu woon ci euh, film kii loolu la yóbbuwoon ci série boobu mais est-ce que mën nga ñu expliquer rek euh, série bi lan mooy lan la doon wund quoi lan mooy jàngale bi ci série bi. jàngale bi mooy bañ a a révélo waa Sénégal quoi tegal leen di fi nekk Alioune Ndiaye loolu mooy forum des fois dañ may wax ne Alioune Ndiaye na lay jox ay million parce que nangam mën nangam dama ko xam dama xam Alioune Ndiaye Alioune Ndiaye moom consommation local moom loolu lay dund quoi moom du révélo nit ñi quoi da lay fi teg boo xoolee dikkoon xoolal ni ñu ko tourné xoolee image yu dikkoon yi mel. xoolal nu mu naturel 100 pour cent banlieue bi lañ la tegal la ko nga xam ne lii moo fi nekk moo tax Europe États-Unis dañ koy enjoy dañ ko bëgg parce que lépp lu ñu namoon biir Sénégal la bu ñu xoolee dikkoon gis ko fa. Aline Ndiaye loolooy foram ba ci VIP santé bi ñu dugg nii gis nga 100 pour cent Sénégal la amul sol tubéy amul sol lu tàng jigéen dañuy musóoru sol lu rafet daal tagalu ñun góor ñu sol yëre olof lépp mu ngi wane ni conseil local Sénégal kenn daa kenn daa ko leen solo ko moom mu ngi wane ni Sénégalais kenn dàq koo solo kenn gënu leen a rafet bu nekkee jigéen ñi ñun góor ñi kenn gënu ñoo boo kenn gënu ñoo xam gën a xam àddina quoi Aliou Ndiaye chaque jour day day promouvoir loolu quoi xool dialogue am beeg ak ay titre filmam bi muy bind moom da ngay gis moom day valoriser Sénégal quoi te tamit loolu te ciy baax quoi parce que tamit lii la yàlla may ah, Sénégal moom la yàlla jot dañu ko war a gëm valoriser ko comme ñeneen ni ñu gëmee seen bopp valoriser seen dëkk loolu la quoi. tonton Alioune ñuy profité ci occasion bi tonton Alioune ñuy profité vraiment ci occasion bi di ko nuyu il a beaucoup fait pour nous euh, borom Pikini production ñu ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm. VIP boobu la ñuy taxaw parce que fan yi nag ma ngi ma ngi def buzz VIP sañse ñëpp koy seetaan les samedi et les dimanche euh, boo jàppee euh, si télé bi ñëpp kër goo dem moom la ñuy seetaan mu nekk série boo xamante ni day wanewaat comme ni nga ko waxee culture Sénégal ñu buggoon a xam exactement lan mooy seen force ci ci ci ci ci VIP sañse lan moo tax nit ñi bëgg ko. waaw lu ne fànn kenn du ko jeex galo lu ne fànn kenn du ko jeex boo bëggee nañ ñi bëgg la da ngay modeste. da ngay modeste bu mu ñodd loo xamante ne nekk da ngay sonn appareil billaahi VIP sañse forum da ngay xool commentaire kilifa mën na koo seetaan xale mun na koo seetaan mag mën na koo seetaan amul lenn li déborder foofu noonu ci cadre solo bu nekkee cadre dialogue boo ko dégloo di nga ree ba sonn. parce que bu nekkee dalaa fekk nga nekk amoon stress di nga ñëw boo seetaanee VIP VIP ak corona bi fu mu nii da ngay ree ba dagg hmm. est-ce que xam ne waa Europe États-Unis ñoo gën a cons affaire bi sax Sénégal fii nii barki Seydina Babacar. kon nga bëgg a wax ni yeneen série yi daw Sénégal ñoom dunduñu lu naturel comme ni ko euh, VIP sañ se di defee. non. tudd ma beneen série VIP sañ-sañ nga ma laaj. man dama bëgg dama bëgg dama bëgg ngay jaar si digg bi Aziz. dañuy waxtaan parce que sénégalais ngay waxtaan non écoute da nga may déglu da nga may déglu da non la bàyyi parce que dama la posé question nga ni ma lii particularité bi. ci euh, VIP sañse mooy ñoom dañuy dund lu naturel maanaam lu ñu fàng kenn lu ko ja dañuy wane li fi ne duñ tricher léegi ma bëggoon a xam ndax yeneen série yi nga xamante ne dañu koy proposé dañoo dund li fi ne. waaw man du baal. ah amul ñaaxul benn série yeneen série doo seetaan idole wala Pod et Marichou wala. la illa euh, man du ma seetaan sama bopp du ma sax sama bopp man damaa bëgg xaalis moo tax. man damay bëgg xaalis ba doo seetaan yeneen série sama bopp nit moo naa ma Aziz Dabala fii nangam ak nangam ma jàpp wala des fois nga envoyé am benn leen ma xool ma xool ci tuuti rek avancé. man lu ma liggéey soxlaatuma ko maa nga maa nga xoolal lan la sama kanam genre boobu laa moo tax damay je suis mal placé pour wax bi ci beneen série parce que seetaanoo beneen série yëpp a nice nag ndax tamit bu buñ demee ba Sénégal di di di di di def ay cinéma dem ba suñu yëf ñëw xam nga tamit liggéey weesuwul loolu canal bi bukki canal bi am na ay novelas yu yoo xamante ne côté coté côté côté côté Afrique bi nii quoi fu ne am nañ fa télé ñoom waa canal mais bu ñu xoolee cinéma Sénégal xam nañ avancé nañ ibbiwuñu suñu yëf ibbi nañ suñu yëf jël série sénégalais yëpp di ko fa teg mu nekk loo xamante ne amoon na ànd ci gox seetaan kon ñu ngi avancé ci cinéma. affaire yaa ngi avancé quoi mais man li ma nekk ci laa mën a wax muy VIP sañse bi nga xamante ne dëgg neexul anti anti anti stress la. boo ko si naan du yuuxu toogee nii par exemple bu ñu fayoon caméra yi man laajte la Aziz ban a dox Sénégal ban série mooy number one lan nga may toon ah man daal série ma nekk Sénégal bii ma dox bi nga xam naa ko te moo tax may fay chaque fin du mois. wuu série gënu koo dox Sénégal jam gënu koo dox Sénégal njaay bii moom ndax ñu sama salaire chaque fin giir ñaa ngi ñëw ñoom Guèye Ndiame ak Mar Xaasin ak Seydou ñoom Baba ñoom xalifa Espagne ngi ñëw yaa ma gën a xam Europe États-Unis maa ngi ciy sama bu baax bu bëggee dégg-dégg loolu la. ban séquence moo la si gën a marqué ban séquence ngay ngay toogaat bëgg am envie seetaanaat ko wala nga joyaat ko. VIP sañse yëpp a nice yëpp a ma neex yëpp yëpp yëpp yëpp a ma neex yëpp yëpp daf maa neex wax dëgg yàlla yëpp. boo bëggee dégg dëgg des fois damay si damay joué loo xam damay seetaan fii jékki fàtte ne damay ree ba dagg yëpp a nice. humour musul am Sénégal Alioune Ndiaye dafa gëm boppam am fii Sénégal da ngay li neex public bi nga koy def mais loolu leen imposé. mais ni Pikini production kese fii génne moo fi def dikkoon série danse àddina bëgg ko ñu ne déet mu indi suñu sama wujju tubaab la àddina yooyu doo ko gis feneen te xam duñ ko xam quoi mais boo gëmul sa bopp doo ko teg ci table bi ñu ne déet muy indi VIP sànce humour musta am fii Sénégal parce que yaa ngi xalaat boo ko defee nit dañ ko bëgg wala duñ ko bëgg mais nag boo wóoroo sa loxo xam ne qualité nga yor oh. kay sa fuure mais VIP sànce ban nga laa gën a sentir sama bopp. ndax VIP sànce dëgg neexul ëpp na daal parce que. <laughs> dikkoon neexoon na trop te dikkoon leewane neex na gis nga mu ngi daw tamit ah mu ngi daw tamit suñu yëf ko mu ngi daw foofu noonu. mais VIP Sanché daal boo bëggee dégg dëgg laa nga ressentir sama bopp que dikkoon parce que VIP Sanché nekkul benn personnage ci cadre ci cadre pro ak acteur loolu daf may dimbali quoi daf may dimbali li may dimbalee mooy su ma demee di jouer faa faat feneen du ma am problème personnage parce que VIP Sanché personnage yu bari la. c'est à comprendre nekkul chaque jour lës ngeen chaque jour këls chaque jour no non non non lës tey jii VIP Santé lii la fi nekk suba mu nekk fi lii suba mu nekk fi lii suba mu nekk ay dóor la quoi te bu ci nekk ak na ma cay waxee ak na ma koy doxee. d'accord c'est à des fois dañ ne ma waa waa mais lës boobu ngay réer ak sa kanam bi affaire yooyu noonu may la lës moo con mais Aziz dafa laa con mais lës dafa con. c'est comprendre loolu daf may dimbali ma ciy nuyu nag très bu baax vraiment wax dëgg yàlla parce que ñun suñu sunu cadreur. réalisateur bi moom moo moo daf may dimbali ci ay dialogue muy très égay ak yeneen gars yi Aziz waxee ko nii waxee ko nii waxee ko nii dëgg la am nañ scénario mais bi dina mel ni bàccum jette lii kii entrée bi la woon rek coob baa ngi ñëw yoo xam nga li ma la wax. xam naa ko bu baax. loolu Alioune Ndiaye du nit jinne la ñu ngi koy ñu ngi koy nuyuwaat encore une mais mais Aziz Aziz wéet nga. waaw. Aziz wéet nga trop. waaw la ciy baax restez chez vous lañ wax. non waxuma wéet boobu de. mais Aziz wéet nga. Aziz wéet nga trop fan yi ah, ah. ci lan kon. lay ananas. récupérer sa doom yëpp gën la xam aar ëpp la xaalis jël sa doom yëpp yóbbu leen ci saalam yow nga toog wéet. ndeysaan kookoy Moussa Jibi Ndiaye Baba Jibi Ndiaye. kookoy kookoy borom riche yi moom riche rek la am nag loolu moo ma jaaxal. waaw moom kañ la dem ci rek. mais fi mu ne nii fi mu ne nii wax yi ngay wax. wa wa wax yi. dégg naa sax. yow doo dem. du ma dem kay. dàq nañ la jël say doom. mais léegi loolu wét bi lu ko waral léegi waxaatam poostum nga ne Laye Ananas dafa jël samay doom. mais parce que gis nañ fi euh, ki nga xamante ni mooy Balla. gis nañ fi nabu Nana gis nañ fii Ndey Xadi mais ñoom ñëpp anañu ña ngi anañu fan lañ nekk ña ngi ci saalu. Euh, yow day xëy na da ngay wax nii rek pour pour pour ñi nga xamante ne ci internet bi lañ nekk rek mais yow chaque jour yaa ngi sama stade xam nga ne maa sama doom yi barki démb woon jaar ndogu mu neex lañ mujjee mais li nga wax sànq nag dafay jar di leeral parce que xam nga tamit. saay saay waxul dëgg ma yàq na xel monsieur Jibi Ndiaye Baba Jibi Ndiaye laa ananas dama koy tooñ ñi rek mais sama xarit la dama koy nuyu bu baax ay na boroom Norvège Laye Ananas jëlul sama benn doom. waaw ah. bàyyi ma bàyyi ma développé la jëlul kenn parce que ñooñu samay meññeef lañ samay œuvre lañ ñooñu yàllaa ma boole ak ñoom boobu ba may gëm boobu Aziz Dabala am ba tey ci ñëw mooy li ma waxoon sama interview bee passé rek dem nañ risi ñëw nañ mhm. bi ma jógee risi tàkk am ñaari contrat di ma taxaw. mooy bi ma xam maa ngi naan la avant ma dem Russie lañ ma doon woo ci VIP sañse léegi ma ñëw Russie waa Sen TV woowaat ma parce que Sen TV euh, ma maxu waa maxu maxu moo moo moo ndeyloo jabaru Aliou Ndiaye na ko këls lañ soxla ci émission ràcc déggoo ma de këls lañ soxla ci émission ràcc mu ne ko këls mu ngi Russie maxu envoyé message ma ñibbi Sénégal ñu waxtaan ma def ñaar sama xolal sama contrat en VIP sañse bi ma koy signé moom ma fa jógee laa dem euh, Sen TV signé ñoom contrat émission ràcc avant ma cee laal dara nag ma cee waxtaan ak monsieur Jibi Ndiaye ne ko ah grand danga ne woon daa am beneen voyage bi ñu waroon dem de te bëggumaa jël ay contrat wu jàmbur di jënaat Sénégal day teg ma ci kot ma xam mu ne ma bul jël benn dañuy dem ma déggaat ndigal de te contrat yi laalu ma ci benn signé gu ma mu voyagé ñu mu voyagé damay bref quoi pour mu gaaw damay bref. parce que bëgguma jël sama temps yépp ci moom parce loolu passé na mais il faut ñu xaw a di leeral des pour ñu xam ne Aziz Dabala moom waaw ci digg bi lay jaar quoi mu voyage bi mu voyagé may nekkaat ak Kumba Gawlo di liggéey Kumba Gawlo ba waa kër Kumba Gawlo di ma laaj sama passeport woo ko téléphone ma woo ko téléphone ko monsieur Jibi Ndiaye Baba Jibi sama xarit bi ah war naa ànd ah Kumba waa kër Kumba Gawlo sama sama sama passeport de ñu ngi may laaj sama passeport waaw boole ma kenn nag mu jox ma comme yaa ngi Norvège googu noonu nga jox ma ko quoi mu ne waa amul problème di tey ëllëg suba ngoon tey ëllëg suba ngoon ba voyage boobu noonu yaa ma gën a xam bokk ma ci quoi yaa ngi dégg léegi taxul ma may la ko quoi mais ma li ma ñor mooy am naa ci benn repère parce que li lay woon ni passeport yow yaa ko war a téye sa bopp loolu jàngat la su ma téye woon sama passeport tey jii duma ma ci sonn téye na ko voyage boobu passé na garaawul mu jox ma sama passeport ba pare mere ma. moo ma ci moo a moo ma ci jaaxal. xam nga yow nag da ngaa sañ wax Aziz. waaw dama wax kon mi lan moo tax mu mere la kon. jox ma sama passeport ba pare mere ma woo Aziz jinne ko Aziz dama laa na passeport am ñu ngi war a dem li ma la xam kañ la biñ tabaskee daaw laa leex nii de biñ tabaskee ba pare noonu ba ñu waaj tabaskee yooyu la woon. dañoo maa ngi nii ma ñëwee Sénégal waaw su ma ñëwee Sénégal dañoo war a dem nangam ak nangam Aziz jinne ma ne ko joxuma ko sama passeport. li ma dal ci sama passeport bi bii nii voyage bi ak ak Kumba Gawlo mu ne waa ma ne ko duma ma dalaat moom passeport moom moo ko téyal boppam lan la namm suñu passeport yi moom lan la namm suñu passeport yi mais jël passeport ni téye ko noonu rek ah voyage yi léegi kooku bu amee di lam war a jéem fu muy jéem ci kër àdduna nañu ti dëgg takkat bi ma koy woo moom ma teg xel di naan ma waaw Aziz tey ngaa déposé beneen passeport nangam ak nangam nga am ñaari passeport mu ne waa kii tamit kan la yàpp. ñaari passeport naka nga koy amee ci senegal njaay gi muré yi dama waa wax nga dëgg de wax nga dëgg passeport bu ñaari passeport mënut a nekk léegi boole ma ak nit kooku dama sama passeport mu ñëw woow ma ci liggéeyam ba pare woo samay doom naa leen seen biddéew feeñ na seen biddéew feeñ na léegi ngeen dem di wax ay wax quoi ci mag ci paa ci koo xamante ne léegi mu dee. la non nañ ma déglu rek parce am na loo xamante ne nga ko def sa jeune sa ci jeunesse yàlla baal la mais paa bu toy noonu. di influencer booy yi di def ay affaire mais booy yi ko nangu aussi tamit. waaw waaw am nañ am nañu naa ma sa booy sax duñu ay nit parce que bu ñu doon ay nit ba nga fa jógee lañ fay jógee parce que tam la nga doon xeex pour groupe bi la man laa jotee ba ak moom dara di ndax nag mat naa mar guute ni ku ma liggéey rek may fayal moom kese laa doon liggéeyal te fayuma dërëm musuma fay. laay rek laa ko doon defal. nga dem ànd ak moom doo ma mi baa ma waay. kon yow voyage ma bàyyi ma am na loo kenn du ko wax. ci télé naa ne yaa ma gën a xam mais yow xam nga Aziz Dabala man ku ma liggéey liggéey nag ak say say nit gis nga ma man man ku ma liggéey la nga may fay bëgg gi ma bëggoon laay tax na man lijjantiwu ma dara am parce que dafa ñëw Sénégal imposé fecckat yi Sénégal yi ne dañ leen exploité looloo nekk comme premier dialogue am ak discours am moom exploité bi naka moom mooy exploité nit ñi ne am naa compte am naa ay voyage dañuy répété dans trois mois dem mu répété loo ñu trois ans demuñu Mali gi te laaj ñu ko kañ ñuy dem non day leer trois ans lañ ko liggéeyal xuma quatre ans musuñu ko ne laaj kañ la ñuy dem nañ fa fekkoon nekk ay nitam moom ay nitam nañ fa fekkoon nekk a ña fa voyage indi woon ña fa bàyyi maak samay doom gore barki Seydina Mohamed di ko lig nekkatuñ say doom doom yi laaj doom lañ que tey ji lii ngay seetaan ni kan la lii xam nga mhm. problème bi am lii ngay seetaan ci télé nii ñëpp samay doom lañ mais daal di ji nga nit boo dul gëm sa bopp wala boo dul boo dul boo dul boo jëlee sa yaakaar teg ko ci doomu aadama jaay yàlla lay ba ak doomu aadama jaay kooku noonu la teg si tamit de wax ma ne ko sama sama sama signé sama contrat wu en VIP sañ yooyu de mu ne bu ko def parce que dañuy voyage loolu moom ci soxor la boole wala bokk mu bokk moom loolu. mais imaginez ko xool imaginez tey jii bu ma defoon contrat VIP sañ ak contrat euh, Sen TV ràcc fan laay dundee jàmm ak corona bii. la ananas rëcc naa la oh monsieur Djibi Ndiaye li nga naroon xam bëggoon maa jaxaseeg waa Sénégal tamit bëgg nga maa jaxaseeg Paa Moussa Sonko bëggoon maa jaxaseeg ëmb dinaa ma dàq ñu ma fecc ñoo ma dàq fecc téeméer junne la ñooñu ay intercontinental ndax fi mu. ku eh, wax naan la ay ñi dàq ñu la fecc ñoom. damay jaxaseeg ñoom parce que dama émission ba tay di gërëm mag ñi mu bu ma leen gërëm. Ah mais boobu maa ngi ci biir maa ngi naan maa na kii li mu moom mooy jaxase ma ak ñëpp ma def ci moom mooy torturer loolu la bëggoon def déggoo ma de mais heureusement man damaa ñor damaa yàgg ànd ak artistes yi su ma gërëmee Pape a mënul tama koy gërëm su ma gërëmee Amadou Badiane Pape mu ne ma ñoom jàqlu maa fecc ñu léegi war naa dama naa voyage maa ngi ñoom ma ne ko non non Pape Moussa Sonko kontam fees na dal na dell Yélu Cun kontam fees na dell ñooñu bu ma tëkkal ak ñooñu mukk ba ma ànd ak yow voyage da nga dama fayu ñu la tubaab dina liggéey loolu nit te du ko fay non mais loolu grave na de c'est grave ba pare nga nar a àndaat ak eh, moom déggool ma la sànq nee naa risque da waroon na amaat waaye man bi ma doon dem dañ koy xoolaat ndax bu nekkee dem tukki ñëw doo yor dërëm moo tax ñu naan tukki ma toog fi di jël samay salaire moom ko dafa ne kenn fay ko monsieur Djibi Ndiaye wax lii ne kenn fay ko tubaab dina liggéeyloo ni jël xam nga risque mu nekk yow trois avion ngay jël da ngay toog ba muuti. siit siit siit musuma suñu mel nii booy dama jaxase artistes yu mag yi nag. mais mais loolu. imagine ma jaxasoo nag Pa Moussa ko li ma doon wax boo ko doon jëfee heure bi moom mu bàyyi ma fan laa jëm fan laa jëm di jaxasee man musu musu ku mel ba pare ñu discours quoi di discours naan fecckat yu jigéen ñi dañ leen war a jàppale ñu góor ñi te la ananas jàpp mun dama ma jaaxal jàppalewul kenn mais jàppalewul kenn dama koy wax man dara naqariwu ma maa ngi feyeeku samay salaire mais dëgg lay wax. mais jàppalewul kenn boo ko waxee. teg si ki la ne am naa voyage dans trois mois ñëw Sénégal def kastinam édition am ñëpp ñëw saa may dégg. nga liggéeyal ko quatre mu quatre quatre trois ans et demi kooku bu la waralee àddina àddina da da ngaa war a war àddina parce que ko war ngor te góoma de te ba muy ñëw Sénégal gii indiwaalewul dara yorul dërëm. mais jàppalewul kenn boo ko waxee Aziz daf may jaaxal parce que jàppalewul kenn te say doom ñu ngi si moom. say doom def choix wu déglu ma rek. jàppalewul kenn say doom def def def seen choix. Mhm. resté ci moom bàyyi la yow. Mhm. loolu boo waxee jàppalewul kenn. daf may jaaxal waaw xëy na ñoom xëy na ñoom loolu loqe na seen bët. xëy na Aziz Dabala fi mu leen jëmee gisaguñu preuve te pourtant war nañ mën a ay preuve parce que tey ji gannaaw yàlla fu ñu mënta taxaw seen tànk rek man la. yaa ngi leen di compal. non man ñoom laaj leen yow suñuy xuloo maag yow lan lay xuloo dama naan samay samay booy fay leen leen yow liggéey nañ liggéey nañ ci ay effectivement effectivement lan laa lay jooyal samay doom fay leen booy ku ma xulóol samay dooma tax ma xulóol ñoom mais du man parce que man naa des nga engagé Aziz Dabala kese mën na la jëlal dolli ma ci kii diw parce que man kese mën naa fecce fecce ba de mais damay bëgg mu yaatu jëlal diw dugalal diw digalul diw clip ba ma ko joxee groupe laa lay imposé xam nga groupe dafa cher. Mhm. groupe bi laa lay imposé nga dem li dafa cher man moo wàññi wala des fois sama jël cachet boo xamante ne cachet cinq personnes la may indi ci dix personnes bëgg booy di mos ñoom xam nañ loolu. c'est à comprendre mais monsieur Djibi Ndiaye li mu bëggoon du ma ko ko tey jii loolu mu def tey joonu jël benn Balla Ndiaye ki nga xam moom ma tuddee doom déggoo ma de ki ma tuddee doom la jël ni jox ko nee na saal bi te nan ko <laughs> non booy bisa jibi jaay yaa garaaw ci mag non affaire bu garaaw waa naan booy fecc di seen biddéew feeñ na te non di wax ay affaire yu garaaw muy egsi ci mag ba bu baax Balla kañ démb ci guddi mais man ba ma yóbbu dama encaissé mais da doon booy di en doo ma bàyyi ci kër a liggéeyal 4 ans xaw ma 3 ans mu solaax kañ lay dem nga am voyage di encaissé yóbbu sa jabar nag ak sa rakk ko jabar defuñu fa dara kooku lu may defati ci moom kooku lan lay defati ci moom yóbbu jabaram ak rakku jabaram. mais say bàyyi fi Balla Ndiaye. yóbbul Balla ma xeex voyage boobu ba sonn pour mu yóbbu ndeysaan sama doomu ndey Balla Ndiaye ma lekk xaalisu Balla Ndiaye yóbbuwu ko monsieur Djibi Ndiaye yaa def lii. lan laay lan laa billaahi xoolal boo ma doon wërloo àddina sax monde entier néew ma du ma dem de waaye fii nga may fay Sénégal nga may fay sama xaalis ma dugal sama compte ñu ànd voyage mais dem nañ virus ba ñëw indiwaale wu ñu puso jënduñu sax sa diri valise yu métti yi nga doon def say statut yi Aziz indaale bàyyi ma waay yow bul jeexal sama xol bi waaye indiwuñ sax puso bu ma yow am na am na jour boo xamante ne ah, dañoo pare ni ku di def di defi shooting du bàyyi <laughs> maay galo ba <laughs> jeexal waay galo xaw ma shooting lañ koy xaw ma shooting duñ jënd ci kii ay yaa ngi dégg groupe yëpp de moom ñu ngi ci de ku ne si nga yor parce que seen ñun ñoo représenté wul Afrique dëkk monde loolu festival bu rëy la festival boo xamante ne xoolal ministre euh, ministre de bi si Russie bi moo koy def. àddina géppee ñu mais ñun képp xamala Sénégal la Afrique lañ représenté woon ñun de góoma de ñu war a dem jënd ci ay bagages. journée boo xam ne dañoo wër dëkk bi mais mais jour boobu laa xamante ne. lépp yéen ngeen noppi noonu noppaale ko. mais nooy def parce que imaginez pas bu tey noonu ñuulal karawam ba mu ñuul di xale xale lu jël verre mi teg ko fi te léeg yaa ngi léeg baa ngi ba fii. imagine loolu pas pas booy mais mais mais du lépp lañ mën a wax gàllankoor xamante ma jox la détails yëpp man sama nit nga. si si fii journaliste ñëw na ba taay du ma dugg ci ay détails mais dama la koy dama la dama la koy defaral mu leer parce sama gaayaan nga yow lii xam nga waxtaan bi la laa ko jàppee waxtaanu biir nekk quoi moo tax ma lay tojal mais lii musuma koo wax gis nga loolu de li ma fa dund yëpp ñu ñibbisi bi ñu ñibbisee terewul journaliste ah, si internet yëpp ñëw may wax lu baax ko te di ko waxal lu baax de jamono jooju nag artiste bu mag bu ma gërëm mën a waruma ko gërëm bu ma jaxaseeg waa Sénégal yor jikkoy góor jigéen lii loolu li jaxase nit ak nit naan bu gërëm Pa Moussa pour lan du ma gërëm Pa Moussa pour lan du ma ko gërëm pour lan du ma gërëm Yéli Cuun pour lan du ma gërëm Amady Badiane du ma gërëm du ma gërëm ñeneen ñi pour lan. mais Aziz li ngay ku la bëgg yow dina la jaxase ay nit dina utal ay noonu ku la yow ku lay créer noonu rek sa noon la mais monsieur Jibi Ndiaye ba Jibi Ndiaye aar bi bu suuxee rek sa classe gii la barki Seydina Mohamed parce que du ngeen fay man dama la doon liggéey man xam naa la bu yàgg parce que boo ñëwee ne 3 mois lañ fi ma liggéey la 4 répétition laaj ma la kañ lay def xam naa la si objectif yow xam naa la bu yàgg mais dama doon ànd a yow te yàlla tax di la may buzz mais bu ma la bàyyee nga fay te dootoo tàkkati pare nga Aziz Dabala ci groupe ëpp na continuer mais Aziz Aziz Aziz li ngay wax dafa garaaw Aziz li ngay wax dafa c'est extraordinaire man révélation yi nii nga def euh, koo ko wax koo koo koo ko wax te gisu ko mais du ko gëm mais est-ce que jàppoon aussi jot na est-ce que jàppoon ni jot na nga ngeen toog autour d'une table yow ak say doom surtout parce que euh, yéen yow yow say doom yaa leen mm-hmm. boo demee ba yow nga jóge fa ñoom ñu continuer fa toog y a quelque chose donc est-ce que jotul yéen ngeen toog ngeen waxtaan ngeen trouver consensus balaa leen daloon di leen dalal. continuer fa toog tey xuloo ko xeex seen biir. loolu sincèreul quoi. tey xuloo ko xeex seen biir. da ci gaaw loolu ko loolu am nga si part de responsabilité. parce que yow yaa leen boole njaboot. non non man maa leen fa indi. man maay def man tey jii bu ma engagé tey jii man maa ngi am maa ngi sant su ma fa dee jóge naa am sama benn doom bàyyi ko fi ci galo muy jàkk wërsëgam man genre boobu laa. mais waxuma la sax ña nga fa des fa de mais des fa ba pare seen biir saal ba chaque jour gita ngaas seen biir ñi nga xamante ñoo tuddoon loo yoroon noo màggandoo benn paa jóge fa ndax ren risi nga dem ñëw mën a la fayuñu ma. loolu jër na xuloo loolu même teraanga sax jarul xulo yow ku lay jox information yi. ma samay dooma bàyyi yow mii bàyyi ma yow mii ba ma maa leen njabootu ñoom ñëpp ku ci ne nag may woo téléphone. ay Dabala ci saal du ay caaxaan billaahi li ñuy def dañ ko jàng dañ koo mën barki Seydina Mohamed bokkul te du bokk. waaw léegi kon yow say répétition ak sa groupe yow nan nga nar a def kon. non man heureusement gis nga ma man Aziz Dabala bu nekkee ci lii mu ngi ci lee bu nekkee ci lii mu ngi ci lee bu nekkee ci mu ngi ci lee heureusement maa ngi sant yàlla bu baax a baax li may sant yàlla bu baax mooy man polyvalent laa ci aar te tollatuma léegi fu may répété 24 heures sur 24 damay am lu ma war a dóor xam ne toxla naa répétition ma woo booy dajale leen ñu répété lii kese la mais samay doom moom moom moom moom moom bul yaakaar ni nit mun na maa jaxase amul ñoom bu ñu amee xelu ànd ak moom. mais di nga toog des fois sa xol laaj quand même. parce que day ndurul ah. day ndurul nit laa mais ji nga yàlla lépp lu mu def am lépp bu dogalee benn affaire day am solution mais man yàlla daf ma dimba dimba dama mën a calmer quoi man man da may def pure wala nga def loo xam ne affaire da war dëgg la te yàlla gën a mën a ñuux parce que xam nga kii sama nit la démb lañ doon ànd ak moom kon benn paa bu jógee fee weex taal ak béjal. léegi Aziz dama bëggoon nga defal ma euh, benn phrase nga souhaité sa mbokk intoni lay seetaan euh, weeru kooru jàmm ak korité jàmm. je vous souhaite un bon ramadan mes fans mes amis waaw waaw waaw que que Dieu, que Dieu waaw mes fans am leen jàmm waaw ngeen daal maa ngi seen ginnaaw lu ngeen ko bëggee noonu laa ko bëggee. mais Aziz tubaab waaw dama dégg tubaab parce que tamit ah je fais je fais le le le le banc waaw bon bon bon jàng naa école sama kii euh, wu ñi rek fi góor ñi di waaye. artistes yi am yi egg naa fa kay. egg naa fa seeg damaa xaw a damaa xaw a fàtte entrée en sixième mooy ban. <laughs> lan ngay lan ngay tàggatoo ak mbokk internet di lay seetaan. waaw Gallo. damay sant yàlla junni si yonent bi di kontaan ci sa teewaay fi yow it sama xarit wax dëgg yàlla affaire bi neex na trop boo xoolee waxtaan bi gars yi sax xam naa dinañ yaakaar dama laa faral mais nag dañoo xamante ma ak yow ñu doon liggéey ay liggéey yu am solo ba léegi dañuy joob nii macha allah waaw di nuyu ñëpp di nuyu waa Pikine ginnaaw raay nuyu waa banlieue bi di nuyu waa Sénégal monde entier waaw di leen xamal ne nag yéen waa YouTube bi kontaan nañ ci yéen waa internet bi parce que gis naa commentaire yi ni ngeen recevoir VIP sañ neex nañu lool lool lool lool lool parce que tamit nag wax tëgg yàlla dara dàqu ngay liggéey sa produit àddina monde entier gën la koo bëgg kon amuñu seen fay yéen ñi ci YouTube bi ci internet bi ñu leen di sant di leen gërëm may nuyu sama xarit Pape Medina borom États-Unis mbokkum yaay Daba Doucouré maa ngi koy nuyu di nuyu borom Bordeaux duma tudd tëram kilifa gu mag la borom Bordeaux non borom Bordeaux buggul sax ko tudd turam di ko nuyu ñaari doomam bi ak jabaram waaw maa ngi koy nuyu bëgguma jaar ci turam parce que moom doxul ci yooyu quoi kilifa la mu jàpp ci man nag du nuyu Guèye Niame ak Mar Xaasi nag seen bu baax ba borom barñi mbokkum yaayu seeg ak aas maa ngi koy nuyu di nuyu sama fecckat yi ji jigéen ñi parce que tamit ndeysaan buñ toppoon bu mbaay bi rek bàyyi nañ ma bu yàgg. wala bu ñu toppoon paa boobu noonu di wax. bàyyi nañ bu yàgg mais chaque jour maak ñoom ñooy nekk di nuyu ñëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu sama yaay ak sama papa di nuyu képp ku jàpp ci Aziz Dabala alliance kër di jëloon nuyu di nuyu Mbaye Seck sama ménagère dëgg neexul mais dama ne ku dee bàyyi projet sama gars yi. àjjana mais mais mais il faut que nga gërëmal ma il faut gërëmal ma amaat sama sama sama cadreur bi moom il est l'infatigable moom du bàyyi. est-ce que Xalifa la. ñoo bokk ndey ak bàyyi ak aussi Fallou Mbodj. Ah! sama xarit sama doomu ndey sama collaborateur. moom aussi du bàyyi du sonn. Ah! donc amaat ak Fallou gërëmal ma leen. waaw amaat day am jàmm. kon amaan moom sama sama rakk la kon ndax xalifa sonal na ma trop mais maa ngi lay ñaanal yàlla boo mel ne xalifa ba tax maa sonal sëriñ Fàllu moom dañuy taxalal loxo yi rek mu ñaanal ñu kontaan naa di leen joxat conseil ci corona bi gars yi nañ moytu dégg ngeen nañ moytu ndax yëngal na àddina tax na ñëpp toog nañ seen kër fu mu toll nii waaw joxeetuñu dara dara doxatul kon na ñëpp toog wax dëgg yàlla waaw su ko defee effet ñëwaat yaa ma gën a xam di xamal nag ñu xaar ma am na lu may waajal te incha allah bu egsee rek yow di nga ci xam dara. incha allah di nuyu ñëpp. incha allah ami internet euh, j'espère que l'émission vous a plu euh, tey Aziz Dabala lañ dalaloon fii fekk si ko këram waxtaan ak moom à kër ouvert nag mu ubbil ñu boppam waxtaan jox ñu ay euh, secret yoo xamante ni peut-être mosu ko wax nit ñu koy si sant di ko gërëm di leen remercier yen mbokk internet yi te di leen ñaan ngeen bës ci bouton bi ñu bind abonné boo leen paree ngeen taftal ci notification ngir bokk ci ñi njëkk a seetaan vidéo yu am solo yi leen di dégtal allez c'était tout émission je vous donne rendez-vous très ak beneen daanaan jërë ngeen jëf